全然。 nee nañ mbooloo boobu yëpp Thierno Mountakha ci boppam moo ko yóbbu. Thierno Mountakha Ahmadou Mountakha Cheikh Oumar Fouti mais dama bëgg ñaan yàlla man sant sëriñ bi. di may yàlla di defal beneen mbooloo bu ñu sant foofu ci dugub. ndax kenn ku ne mën ci شام يحيى يونا يا رجلي حمد بدنا عيالك من خط الديوان انا خليني وقفت شاب المنطقه شاب المنطقه yàlla mu ngi ko seetoon ay tur kon yaa ci Fuuta kon yaa ngi ci ci Mauritanie itam ñoom ñëpp nag xam nga leen de li nga nekk ndaw ndaw yëpp ci nga juddu ci nga màgg te xam nga dama ci ñoom ñoom ñëpp. لم يعلم عن بدء الوجود يجمع زيارة سلسلة المنتقى طه man ci ñoom laa bokk ma bokk ak ñoom ziar bi ñu baax ñëpp danañu ñëw daje mbooloo bi mu jox ma ay leetar trente six leetar fanweer juróom benn ci ay xeetal yu nekk ci biir alwaan mu ñu nga leen rek nga leen nag yàlla yaa ngi ànd ak Seydina Muhammad yaa ngi ànd ak Cheikhana Ahmada Tijani Cheikh Omar moo jiitu ci yoon e leɗɗi ɗi fof gaddan yeggete xeet gonɗi nekk foof yëpp kala kala hen leño bépp xeet totta ɗum jàppee ko Thierno. nga di leen Thierno Seydou Nour. néew naa leen moo leen yónni si. ko ko ko almuudu juurotoo ci. mais taalibe mooy ziar si Seydou. ñaari weer maa ngi nekk ci biir àll bi may yendu fii may fanaan fii may dew rew maa ngi dem sow di dew kër xeet yi ma sëñ Nour Cheikh Omar waxoon ak xeet yi ma xamoon ñoom ñëpp dem naa ci ñoom boo demee kala ɗo tawɗa hen goto fof tijani muy tijani ene rohi mugi beeɗi duwal duwal ɓe ñaanal ko yeesalam ko yoni kala jiɗɗo rokkede kamɓe ko ɓoga jen tariqam garɗa e wuro nga ñew ci dëkk walla e leydi walla ci xeet rokkuɓe kam jox len ñoom ñëpp tariqam ci sama ndigal man seydi kamɓe fof noon ñoom ñëpp mbiyaɓe ba wax len so jaɓɓe misiri ɗum ko jaɓɓe janane ko waxtaade yoɓe demluga min hoora mante sama bopp man seydi usay mantinal mantinomne bokk komin kadi man itam maalen garanti bu baax bi ñuy am ci soxla wu fuuti et c'est des soxla ma dem ñaari weer fukki fan ak juróom moo nekk ci àll bi képp ku ne ci ñoom ku ma xam ñëwoon xam boo ma ko dagalee ñoom ñëpp ma wax leen li ñu lépp lu ma tontu ma jël bi am naa benn manato am naa benn manato bu ndaw Euh, ma ari sira mu mu gàttal ko li ñuy bu ma leen waxee li ñu koy tontu ma ari sira ko loolu laa def ba ñaari weer ak fukki fan ak juróom ah, ba ma dellu ci kanam si muy soxla ñu ma àndoon ak ci doon yoon wi euh, boobu bi nga xam ne ñu bis naa muy sant say ñu ko yaxyaa ñu bis na mu ne ñu bis naa o nawi haanen wuyo ko fofosi leegam min mbaɗata koye suudu hee mo mana moom ñaɗane fanata dimɓeji mo tentinima tele radio ɗi tekka sum tigen mani ko xeeto nangam eh, ñaari heen ñawna fo waxtu wi eh, bisu nangam eh, weer nangam ma fanaan foofu wala ma yenn foofu ma wax leen sa yëppante li ma tontu déglu mu ngi nii mu déglu mu reer mu kontaan ci loolu moom Seydou Cheikh Amar am na jéego. ànd nañu juróom benni fan muy déglu kasa bi. mu ne ma ni war a jubbi sa kër. dégg naa de. jaar naa. bu demee. bu koor dee. allah allah julli. dem leen Louga. Eh, ne la naa li ñuy. boo woo xeet yëpp. kaw ngeen ngeen dajati Louga. ngeen dem dajati Louga. ngeen dajati Louga. allah waɗani eno ɗon yo allah dogorene ko noon ceerno murtada ceerno murtada da ceerno murtada ba ceerno murtada ba rahmatullahi aleyh o walli kamɓe jumbaɗenema ci noon e leɗɗi ci heeɗi ɗimo jiidiɗi ɗimo bokkal yeb ko dari ña sanno même taxawni no andat moom dimbali ko ci min ƴetti oto ñu jël ay oto otoji ɗiɗi gaari oto cinq cent quatre moamadou min indi ko fii ànd ak ñeneen ñu ñëwoon ñu ci wuy si woon ci xadara ñu daje fii Ceerno Bachir moo ñu gàttal mu gàttal ñu gàttal bu rafet ñu dem ba ci Ceerno Seydou Ceerno Seydou mu ni léegi da ngeen wax ma ni xeeti yëpp waxtaanee waaye nag sama wax kese du doon dama bëgg nga jox ma ci kenn ci jotu Cheikh El Hadj Omar mooy ànd ak man mu xam ni lii ngay wax ci Cheikh Omar la jóge ci yow kii dëgg ci am ndax man sama kàllaama mën nañoo guri min denndi suusa taniraɓe seydi ɗum ɓeɓe wasata cheikh mari de min ƴetta hen ko ma jalti hen mi yaldaɗumekoti leydi weeɗe jettumi cosmi ɗum koye muɗon no ciyen rennaɓe ɗon taniraɓe seeɗa si tawi seydi cheikh mari sa neni hen ko boyonne ken heddimɓe mbiya nenen min yiɗi sotal ga diw kono haala ko noon ɓa potnolgam ya ya ko mawne o jaman so so mabbi cheikh mar moutagaɗa ha jahaatu nga dem si moom nga wax mbir mi li nga wax nii ko suɓanna mu tànnal la gamala bohuni moom ragalul dara sa xol mu ragal mawo suɓana dina la tànnal kenn mo gondata koy àndal ci jotaay ko suɓanani ceerno tànnal ko ceerno mahamadou bachir mu di ceerno bachir ko seynima sa xarit la eh, sa sa morom la te onon mbawa moom rek la ñu yàq woon ci kër gi moom danaa ko yónnee mu ñëw ngeen ànd ak dem ceerno du amoon ceerno ñaanal yéen daal jëlee daal yi yàlla dogal na Thierno Bachir yow ci na ci yonentam ci na la yonent Thierno Bachir ñu dem ci Thierno mu tegale suñu ñaari loxo ويعني من فعل من شر الحياة يا يا يا Sada Basri Moise Sheikh Omar Mohamed Yahya. Mama Yoro Yahya. Ndax tërëb Cheikh Omar. Ñaanal laa leen. Dajale leen daal leen. Fi la demoon yow ca may xeex. ñoom ñëpp dajale leen leen def leen ay daajale. Su bés bi ngeen jàpp. Bu ngeen commencé ziar bi. Foofu mooy ziar bu mun wowma to cheikh omarɓe wowma kareɓe homo tahaw on e bobraɗa mo johatɗen sirrila ɗiseɗe cheikh omar tahawa daño yalla taka wallate ziyara mugo ci yitte sunu maam seydu cheikh omar ak tahawa e ceerno bachir hoɗi yebde ne wattite سيد بالله man maa wax nga wax lii cosaan ziar bi leneen li des mu ngi si loxo Thierno Mohamed Samas bu mottali ko bu Thierno Bachir Kébé incha allah moom lii bugguma ko sol wax waaye waaye nag buñ la laajee dara nga wax ci loo xam rek jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah.